jokka war adduna sangam bar la war bëgg laa nax ba war la rek lim nar ku naa dalu yàgg yàgg dali war jagu ba war jëmu ju tëdd ji mooy sëriñ El Hadji Bara Mbacké ñenn ñi di ko woy sëriñ Bara moo fi nekkoon juróom benneelu xalif général ku lu murit sët bi njëkk wuutu sëriñ Touba ci xilaafa yoonu murit sëriñ Baara Mbàkke moom sëriñ Fàllu ku ñu ràññee ci jikko yi rafet dëggu ga mbaax ga ubbiku gi yaatu ga doon ku yàgg jox doomu aadama bi wàccuwaayam fonk lool kilifa yi ku fi jiitu woon waaye tam jox lool cër mboolem njaboot gi rawatina taalibe yi sëriñ El Hadji Baara Mbàkke moom sëriñ Fàllu seede yëpp maasoo ci moom doon jëmm ju làqatu nañu daanaka ba dem mu jafe lool ñu xamoon dëgg kan moo doon jëmm ji ak mbaaxam ak ubbeekoom ak yéwén ci dara jaam seede yi mu jafe lool ñu fésal dëgg-dëgg melokaanu mbaax bu Serigne baara Mbacke moom Serigne Fallou. te soo ko dee xool mooy Serigne Fallou rek wàcc na lool woyof na lool bëgg na nit lool jëkk ma naan bokk bëgg na nit lool. doon nit koo xam ni def mbég ci xolu jullit liggéeyam la woon. dana la lakkal anglais français allemand russe arabe. da ngay ba tàyyi rek ah, loolu mbaaxam la ak woyofa aw doxalina mag yoonu murit tax xam naa ne ku gëmoon la ne yoonu murit daa war a génn fii mu nekk ndax lay fir la ko waral mooy fam doon jël misaal biñ ci bëggee ngir defar yoonu murid nañ xool Makka ak Madina. nga gis liggéeyub sëñ Touba bi nga xam ne foo ko liggéeyee la mu fayee la foofee sëñ Alaaji sëñ Touba da ko fayee diggante Makka ak Touba fii ne boo nee Cheikh Mamadou Lamine Baara ñëpp dañuy jàpp ne moom guy mbind boo nee sëñ Baara it ñu jàpp ni moom guy mbind mi la boo nee Alaaji Baara ñëpp dootu xam ne moom kenn dootu ko natt Alaaji Makka la moo Mouhamadou Lamine fii tuubaa la da ngay boole tuubaa ak Makka ñu soo koo xam. moom Serigne moom sëriñ El Hadji Falilou Mbacké ak soxna Xari Sall mu ngi gane jamono ci atum 1921 ci Touba jëmm ji ñu ràññee woon lool taxawaayam ci mbooleem kilifa yi jot na fekke seenu nekkin moom sëriñ Baara guddil leen bëccëgal leen tarbiwu leen laata muy jot xilaafa sëriñ Touba si Ahmadou Bamba liggéey ci liggéey bu mucc ayib liggéey bu ba suñ jon yàlla tey fàttaliku bi rafet lool sëriñ Muntaxa moom sëriñ Bassirou mi toog tey jotaayub sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba sëriñ Bassirou moom sëriñ Abdou Khadre mi yore kàddu yoonu murit seeni seede jëme ci jëmm ji lépp di firndeel tabe mbaax yaatu sëriñ El Hadji Baara Mbàkke moom sëriñ Fallou do ni mu doon doxee ci yoon wi nam nam doon nam nam nam doon ànd ak sëñ Fall bisu ajjuma di ànd ak sëñ Abdou Khadir ci loolu itam loolu posté bu rëy ci taalu bi du du du sol mbaax ne ci ci ci ci waa ji loolu man loolu man maa ngi ko doon siiwal ndax bu ma tawfeex ci moom xoolatuma ci moom sëñ Tuubaa. doonoon itam ku ku tabe dara jàmm ndax loolu ci biir woyof kër lay duggaat ba tey. muy loo xam daanaka jëru firnde adduna si xam nañ ko doonoon koo xam ne itam yitte nit ñi moo ko gëloo yitte boppam ndax bi mu fiy nekk man nga ne foo dem rek danga nga fa fekk ndawul suñu a war a ab leetaram waaye kenn mës sa jot leetar bu jóge ci moom moo ci sàkku yitte boppam wala lu jëm ci ak njabootam li mu toog ci xilaafa gi yàggul waaye li mu fi liggéey kawe lool ay njort moom Serigne Bara Mbacke moom Serigne Fallou bàyyi fi fàttaliku yu rafet kenn ku ci nekk mën a indi ab seede ci taxawaay bu am solo bu Serigne Bara Mbacke moom Serigne Fallou yàgg na ko taxaw ci diine lislaam rawatina yoonu murit ngoonu fanweeri fan ci weeru juin atum 2010 dëkk bi sa mboole murit yi jaaxli sëriñ El Hadji Bara Mbacke na ci juróom ñett fukk ak juróomi atam moom jëmm ju tedd ji wan ñu ginnaaw sëriñ Bara bàyyi ci ginnaawam njabootam njaboot gu yàlla barkeel lool car macha allah lii tax ñu di ko jagleel bés bu ñu ko ci fàttaliku moom sëriñ Bara luy gën di firndeel digganteem ak njabootu sëriñ Tuubaa si Ahmadou Bamba li ko doore ci kaw ba ci sët yi Serigne Bara séq ak ñoom diggante bu rafet liggéey bu njabootam gi mu bàyyi ginnaaw ñu ngi koy gën di jëmmal lay firnde li màggalu ren gii ñu ko jagleel njabootu Serigne El Hadji Bara Mbacke moom Serigne Fallou kii toog jotaayam tey di Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne El Hadji Bara ànd ak mboolem njaboot gi ay rakkam lépp ñu jël ko ngir delloo njukkal. sëriñ Cheikh Sidil Maxtaar Mbàkke mi ñuy jooy te noppeeguñu màggaluk ren gi ñu duppeeku ko dara jaal ko ko di ñaan diggante bu rafet bu doxoon ci seen diggante ñoom ñaar saa boroom méngale seeni mbir yokk seeni leer yokk seeni màqaama te taas ñu seen barke te teg loxo ci njaboot gi di ñaan lépp lu fi waay ñaan sa boroom def ci lu raw njort jokkawar àdduna sangam bër la war bëgg laa nax ba war la rek lim nar ku naa dali yàgg yàgg dali war jagu ba war murus ba dee di sa